de golo golo golo du kañe de. yow yow xamoon nañu woon Simbu Gaynde. waaw maa tay Simba maa maa maami Simbakat yi maa tay Simba Gaynde la na garaaw loolu am ay détail la nga yooyu yëpp mbiri góor la am jaar jaar nga xam ne léppam ay erreur la dara jaaxaluñu si Baye Mandione buy wax erreur la buy dox erreur la lu mu def erreur loolu la mu ne sax man moom mën naa assuré loolu billaay ma tegee benn tànk andeer sama benn tànk bor bi ba def nii benn rek yaa ngi de li ma waroon suma diggante ak bi ak sponsor bi ma jox dara woo junniy xoyantaan faalewu ma leen dégg ma de teebeeram li gëntuuma man xam nga lan laa xalaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama man Modou maa ngi jox ñëpp rendez-vous diggante xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah mbokk yi yéen ñu ñuy suivre ci seen site internet comme ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ki ñu jàkkaarloo nag mooy réparé nekk champion dëkk Géejawaay di recommandé yaakaar naa ni loolu rek doy na comme présentation dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñuy suivre Lutte TV point com ñu waxtaan ak moom ci combat bi nga xamante moom la jëm digganteem ak Yanka mu war a am le 21 décembre sa jëm Iba Mar Diop petit nag moo ko tëgg dañ lay nuy di la jaar réparé. waaw Lamine ginnaaw baatu onze bilaay mi ne seetaan rajim bisimilah rahmaani rahim ginnaaw bañ sant yàlla julli sant bi sant sunu ñaari waajur naan jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. jaral ak maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp jërëjëf Serigne Saare sama yaakaar teegal la di siyaar àdduna di siyaar ñëpp di siyaar si ma jóge muy Géejawaay nga war a bëri ak Yankaw fan nga toll ci waxtaan bi. man su doon suba pare naa. Hmm? su doon suba pare naa waaw jàpp ko bi defaral ko. xam nga ki ngay ba naan su mooy yow Yankaw du dërëm. Yankaw déggoo ma de. waaye hmm. la gars dañ koy rek <laughs> dañ koy monté fit de Yankaw du dërëm. Yankaw champion la ndaanaan la borom am na doole mën naa bëri. waaye champion la ndaanaan la waaye tamit super ndaanaan lay dajal Yankaw maa ko gën a capable ci bépp côté. Hmm. ci bépp côté am sax. waxoo waxu moo waxu mbër man li damay wax di jëf. waaw ah, sama maam nee xale bu ndaw danga koy tibbal sexal ko waaye mooy wanaasul boppam. voilà déedéet kenn du jàngal kenn. te yow yaakaar nga ne mën nga <laughs> si kàttanu yàlla nee naa la yaa ngi ko ko gën a capable ci lépp te li ma waxoon rek laay wax du ma si arrêté dara làmb yi day yàgg day gaaw. ñu loolu. moom après lay comprendre loolu. maanaam waajal nga ci côté yëpp. déggoo ma de lépp li jàmm war a def dina ko def ba mu mën sëkk li sees ñu bëgg loxo suñu borom waaw. côté wàccaay bi combat tax taxawee ak léegi nan nga doon waajalee combat. non ñun bàyyi ñu ba am combat di entraîné quoi. waaw ñun chaque jour man dama jàpp ni chaque jour man bombardier laa war a bëreel kon lépp lu ci war muy wàllu entraînement dama koy def guddeeg bëccëg suba ngoon. Hmm. Hmm. sa objectif daal mooy mooy mooy ñi fi mën nga war a bëreel moo tax yaa ngi ci la war. waaw déggoo ma de làmb leen la actuellement damay passé examen moom moo ma jiitu si làmb moo mag ci làmb moom mag si ay kon tamit xam nga sama fulaak sama fayal ak sama gëm-gëm moom indi fii. waaw di ñaan yàlla si kàttanu yàlla mu daan ko. na lu muy représenté lu rëy ci yow. non bu lu rëy rëy rëy moom man maa ko waroon waaye moom moo ma doon tëkk. mbiru sunu borom loolu mbiru sunu borom la nit ki bëri na fi ay combat yu bëri kenn kenn déggu ko waaye tamit man su demee ba am ñoo xam bëgg a bëri ak man damay doole sant yàlla kase na def ma fi loo xamante ne war nañ tax di mu tëkku waaw ay yankaa moom combat bi <laughs> yàlla baax yàlla baax na waaw mais nag yàlla yéen ñaar ñëpp la fi nekkal gis nañ tamit bu ngeen njëkkee toog côté masse dafa mel ni moom moo la xawoon ëpp ñu doon xaar booy ñëwaat fii nga yokk masse bi dafa mel ni da ngaa maintien rek. non ñoo ngi ci ñun lépp ñoo ngi lépp xam nga maa ngi entraîné maa ngi entraîné nag yemul ci waxu kese quoi eh, suñ bi suñ sumee ko macha allah yàlla bëri na sutura. Eh. yaa ngi ko ëpp doole. déggoo ma de góor maa ko mën maa ko ci mën hmm. lépp ci foofu góor maa ko ci mën. lépp làmb yaa ko ci. lépp foofu góor gi amu na lépp. ñun kay làmb lañ wax nañ wax ci làmb. Ah, làmb foofu xeex baag bëre baag dóorante baag ñeme gaag yëpp. moo tax làmb foofu góor a laa la ko tënkal si làmb suñ jógee ci làmb ak fépp fu ñu mën lépp ci foofu góor maa ko ci mën yankaaw marak moom ñu dugg oto di dem jawwe di dem jawwe rek laa la wax. wala non rek. Ah. arrêt bu ñu àgg moo daan ko yéegaat. ci mbëri man de jaaxal nañ ma rek chaque jour ak seeni terme non man li ma ko gëm lu ma gëm la lu ma gëm la. jawbe nu mu soree ara bu ngeen wàcc nga daan. ma daan ko yéegaat jawbe laa la wax ara bu ñu àgg ma daan ko yéegaat ñaata aree nekk si yoon bi munoo ko wàññi ara bu ñu àgg ma daan ko yéegaat. waaw dama ko gën a capable. yàlla seet na li loolu dara de. déggoo ma de xam nga am na ñoo xamante ni sooy bëreeg ñoom. keroog si biir moom am na lu mu wax te moo ngi sama xel waaw moom sibul. mu ne lan. ay dara Lamine. bii luy neex ci làmb ji maa koy def bu soobee suñu borom. moom muy nelaw ëpp na ma ragaluma lool de. est-ce de dafay xarang ngeen di nii xam nga làmb dafa am loo xamante ni. dañ ko bëgg a def te du te noonu nit ki bul dégg waxu nit ba def loo xamante ni du te moom loola ko nar a dal instant nii non moom dafay dégg ay wax yoo xamante ni lim su ñëwee nan du ko li nga wane rek ci bëre loolu lay ñëwee loolu lay xool xool say say say fas yéene bëri ak yow. na ñëw suma combat yëpp seetaan nga ko su ma ñëwee nii tey suba nee laa ñëwee. des fois nga xeex. su ma ñëwee nii tey suba nee laay ñëwee. bi bi def bëri daan wala xeex daan. <laughs> non bë yàlla may nañu ndam daal. <laughs> nu mu demee na da daan ci bëri wala da ngaa daanoon ci xeex. non yàlla may nañu ndam xam nga. mas dóor mbër mu daan. non non mosuguma dóor mbër mu daan. Hmm. man damay ñeewantal yéen yi quoi. buñ la jékkoon dañ lay dóor nga daanu. garaawul la dee benn la dee deewaat est-ce que am na. waaw dee benn la waaw. ana góor a la. mbër moo fa. mi ngi jàpp ci combat waaw moom chaque jour ko jëfee mu ngi ci. Hmm. waaw chaque jour ñun moom ñoo ngi ci quoi. waa Guèye a a ngi ci waaw moom moom yaakaar moom dafa tiit quoi dafa tiit. ngi ci combat Guèye waaye ngi ci combat ñëpp a ngi ci mu ñëpp a ngi ci combat bi laa la tiit moo tax mu doon ñëw sama salle fu foo jaaf na foofu laay entraîné moo tax ma ne ko da nga nax ki leen ne foofu laay entraîné nax na la. Tapha Tine tamit mi ngi ci ginnaawam ñoom Wouly 2 ñoom Boy Baol ñëpp. loolu loolu problème ñoom ñëpp suñuy grand lañ ñun mënuñu fee def ñoom luñ deful kon ñoom seen i tànk la ñuy woy n'est-ce pas. voilà jàngi jàngaan ku ku mokkal ber sa daara. Hmm. noonu la demee. est que duñ ko def géej waay Baol ren. non du géej waay Baol. non daaw da ngeen a duggoon Baol yéen neexul ci yéen. Marley Mar Mar mais Marley de Mar. man ki ma bëree doon fu mu nekk. ni ngeen tëjee seen saison ak waa Ba. fu mu nekk di ko fii la nekk Bawol la la dëkk. nekk Ikiri Dakar loolu si dara ñun ay bool Bawol Bawol lañ du question of Bawol Bawol ak waa Géejawaay du loolu man la ak Yankaaw. waaw ñooy dugg si géej lu ñu gunge gunge gunge. Macky Sall su nekkoon sama ginnaaw sa wala mu nekk si ginnaaw ñun ñëpp su ñu demee si ginnaaw la ñuy taxaw quoi. Marley koo ko jox instant bi kan nga jàpp ne moom ak Marley combat. non. wax dëgg fa loolu du sama du sama lii quoi. moo tax nekkul yow yaay tëgg da ngay wax. du man maay tëgg quoi xam nga am na loo xamante ni daam ñu ko moome xam nga loo wax rek dañ naan sax parce far moo tax moo loo tax moo tax yooyu duma si. du si xuus moom moo ngi fi xale la moom ñëpp làmb la. waaw ku ko làmb booleel rek mu jël. ci defet la jóge de ci ñaar defet suma jiw. waa xam rek lépp ak mbir suñu borom la. nee naa la jàmm li mu war a def da koy def ba mu mën sëkk li si koy bàyyi loxo suñu borom. revanche am ak feu rouge loo ci wax. non waaw lépp làmb la <laughs> lépp làmb la nee naa la man loo am na yenn yoo xamante ni. Ah, mais waxtaan waxtaan la def moom ak feu rouge boobu d' accord nga ci wala d' accord. ñun ñëpp ay xale ay morom lañ te te làmb dafa neex nga bë ngay bëreeg say morom waaw maa ngi dégg am na gaa yoo xam ne ñu wax yeneen combat waaye tamit ku ko làmb boole daal mu bëre. Marley Coly Faye de 2. non ba tey du ma si développé <laughs> ah non du ma si développé nañ bàyyi noonu. mais bëgg nga boobu de. non non man su ma taxee place amateur quoi ma taxaw place amateur bañ a taxaw place far quoi. amateur bi laay laaj instant bii nii te laaju mooy rakku Marley. voilà su dee place amateur moog Ameth Deme lamb la moog caat bu ba Amara lamb la waaye moog Coly moom non j'aime pas non non. daa man Coly Faye wala daf ko ëpp doole. non du loolu sax. làmb tamit mooy loolu pour man sama xalaat bu gàtt ak Pape Thiam ak Coly Faye sax xam nga làmb du boolewu leen sama xelaat bu gàtt comme n'est-ce pas moo moo tax quoi. noon nar a ñëwee le 21 ci côté mobilisation ngeen nekk ay xale ñu jox la combat spécial promoteur bi nekk xale journée bi yëpp ay xale di ko di ko di ko di ko di ko bëre. lan la ñuy xaar ci yow ci côté mobilisation est-ce que stade bi am nga yaakaar ni mbër yi bëri foofu 20 mbër yi dinañ ko feesal. non bañ feesal. yow déggoo ma de jamono ji mbëru ndaw yi ñoo fi ëpp supporter ko mag ñi sax ndax làmb ji ñu si bëri ñëpp ay xale lañ ñëpp a ngi waaj làmb ji n'est-ce pas ñëpp a koy waaj te làmb ji macha allah dina taaru déggoo ma de damay teel a ñëw si kàttanu yàlla tuus tuus mu neex feetal esaat bi jàpp yankaaw daan ko si kàttanu yàlla waaw di woo ñëpp waaw géej waay yëpp bàyyiwuma kenn sama doom day Ibou Ndiaye du ma ko mos a fàtte chéri gas xam nga di siyaar baru tamit baru daraame xam nga Baye Seex bitaas ma jale Fallou Thiam xam nga bitaas ma jale di siyaar gaa yëpp di siyaar waa Alba tamit di siyaar Bàccu Ndoye ah ko siyaar baax baax mooy jàpp si combat bu baax ah ba may dem Gambie xam nga moo ma jox lu ma demee Gambie siyaar gaa yëpp tamit di siyaar Sidi tamit Sidi Teer xam nga di siyaar àdduna di siyaar sama boy bi mu àndal muy wóos ah Ousseynou waaw di siyaar Faye tamit xam nga di siyaar ñëpp di siyaar tamit suñu waa daayira ah, bu baax a baax a baax di siyaar àdduna yankaaw yankaaw yankaaw ñi ngay yónni daanuñu ma. yankaaw ñi nga yónnee daanuñu ma yónni yónnee nga ñëw saal. saal bi ma boobu entraîné ma fa dama la njoy du foofu laa entraîné jox ko jigéen sama numéro pour bëgg a xam man ceetoo laa de lu leer laa lay wax te su ma la jàppee di nga xam ne doo dërëm di ji dëgër ko gën. amiin xam ne golo golo du golo du kañe de. yow yow xamoon nañu woon Gaynde. waaye maa tay Simba maa maa maam Gaynde laa. non waaw garaaw loolu am ay détails la. nga yooyu yëpp mbiri góor la. yaa ngi góor foog nga jaar jaar. man Simba naa ba tay fu ne. Baye Mandione mi nga xam ne léppam ay erreur la dara jaaxaluñu si. buy wax erreur la buy dox erreur la. lu mu def erreur loolu la mu ne man sax man moom mën naa assuré loolu. billaay ma tegee benn tànk andeer sama benn tànk ba def nii benn suma diggante lijjantiwuma junniy xoyantaan faalewu ma leen dégg nga ma de téeméeram lijjantiwuma leen man xam nga lan laa xelaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama man Modou Lo maa ngi jox ñëpp rendez-vous diggante xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah